lépp ñëw na xam naa ne yàkkamti nga am say mbana yooyu yëpp dagg ko parce que liy jot jot na kii ñëw na caam nga doon xaar doolu laal te ñëwul mi ngi nii egsi na voilà. wax ji daal fi indi te dama war fay ñetti weeru caution xaalis bi nañ ci teg jaasi gaaw. ku na jël wàllam. waaw jarul xugali bët de. waaw mooy lan lañ teg jaasi ay dama yor pour ñu dagg ko rek dagg la wax ci digg bi ku ne jël li nga am. mooy jaasi. yéen boo toogoon si yow boo toogoon fa nga ne dinaa leen di xaalis bi yow ñoo bokk kër gi daw ma daayu ma réeru ma la yaa ngi dégg. waaw tawe xaalis bi sax fi mu ne nii mi ngi bëgg a bari. mais eh, jaas yi li mu lay wax mooy pour ku ne rek jël li nga moom. xam naa loolu waaye vieille Ousmane. waaw lu tax yéen dañoo naroon a jaay kër gi ñun ñett ñu séddoo ko. waaye yéen a bokk ndey ak baay. loolu si yoon si vieille Ousmane vieille Ousmane daara ja gis nga ñun. suñu ndey daf ñu tàggat ci diine xam nga yéen ay yéefar ngeen du ngeen julli jàngu leen alxuraan. xamuñu ko sax ah xamuñu ko sax bis buy ñëw du leen tàggu et puis loolu sax dadul waxu tay loolu bu jotee ku bokk ci famille bi war cee cëru rek di nga toog teew balaa kenn laal dërëm li teew gay mooy xaal bi nga génn ku ne jël li nga moom dem si dina génn mu ndax mi nga ma denc moom bi xaalis bi ah, dama koy dama waaye daf jóg di génn lan la lan ngay xaar génne ko ah mais lan ngay xaar amanam ah, ah, génne ji ko mais kii ah daa mel ni néeg bi kii moo bari wax. xam nga dama waxul loolu. moom li muy dugg sax moom miraas xam na jigéen lu muy am. ki xamul lu xew. ah xam góor day am ñett. benn lay am moom ñun du jaay kër gii. te vie Ousmane teewul. dama ne. Hmm. yàgg moom a yem. ci la vie Ousmane fàtte woon nga ko man fàtte ko de. fàtte ci la. fàtte ci la waaw. Ah. te vie Ousmane la nga ñëw de te du leen tàggu. lan mooy sàcc lan ku sàcc lan bi. xool xool xool xool yow sàcc xaalis li ngay waaj di kat sama sàcc xaalis eh yaa sàcc xaalis ma sàcc na yow la ban xaalis waaye jamono yéen la complot yéen la complot laa wax waaye duñ ko xotti fii dañ xotti la fii ki mën a sàcc ko sa eh eh gën a gën a xaw a gën a xaw waaye mbëkkal mbëkkal dégg nga mbëkkal mbëkkal daanu mi soob naqal gën a gën a xaalis gën a gën a dugal génn xaalis bi dugal génn xaalis bi génn xaalis bi dugal génn ko génn xaalis bi na génn ko sàcc moom bii la ay wax si génn xaal waxal na amul sër amul dañuy dem dañuy dem police dañuy dem joxal nañ dem nañ dem police kenn sëñ ay dañu ko tool dañuy dem jabar ko ah kon moo tax mu daw dem kër papa jabar bu ay yaa ko wax yaa wax loolu de eh eh jeex na ay jabar bu mo xaaral ko def ma ñaata la ci jël xaalis bi gis nga enveloppe nga ñaata la ci jël yow gis nga enveloppe nga ñaata la ci jël lépp la jël jëloo ci dara yow xam nga jabar bu mu sax am kon leer dama ne du yaa wax yaa ngi koy assumer bañ a yegg ci loolu. Xadi fan yi kër gi yëngu na de ay coow li ma gis ci kër gi maa ne ni def rek nii la bu kër gi dee toj toogal sa néeg sa ay mag sax dinañ jotee ki xale ci biir kër gi xale bi am dëgg waaye da nga gis kenn dëgg waaye yow moom na nga def rek ne la jàppal sa njàmbur toog man daal loolu laa la loolu laa la conseillé man bu ma la dégg benn yoon wax jib ci kër gi wala ñaari nit jote ba nga dégg teg salaam jàppal sa njàmbur mel na ne ku fekkewul dara mais bu ma defuloo man lan laay def bu dee coow rek ci kër gi ma xam ne doo ci dégg bañ naa ko ba heure bu ma xëyee maay dem sama kër copine yi di fa toog ngir rek am jàmm comme kër gi moom bëgguñu jàmm man ma dem wut sama jàmmu bopp. wala ci dara jëlee wala ci dara jëlee ni ko def rek noonu la jàppal sa mu ñu rayante maa ju tojante bopp bu ci sa yoon nekk loolu daal la lay conseillé. yoon du ci nekk ndax dèjà maa nii di wut liggéey te su ma ko amee su ma xëyee dem balaa maa ñibbi si tëdd jot su ma ñëwee sangu reer tëdd. moo ëpp jàmm moo ëpp jàmm waaye xadi dafa lu ma yëg mu jaaxal ma lool ub sama bopp bi xadi bu nu mu mën a ngorowoo ak abi yow yaag abi ngeen di benn du ngeen ñaar nga bëgg war koo yëg mu ci tekk te yëgu loolu boo ko seetaanee dina yàq sa diggante ko mu. yaa ban na sa <laughs> te dangaa juum de juum fu leer laa ko jëlee abe mi ngoro wokk buuf te yow ba ñu nekk kër gee tàggu nga ma ba tàyyi ànd ak abi dem seeti umu loolu bu jibee dana ñaaw lool de te sa der dana yàqu te sa diggante ak umu dana yàqu loolu nag laa lay dawal li ngay wax nii leer na la naañ abi nga ma wax de abi abi laa la wax sa bos baax na dëkk kër gaa ngi toj deful loolu. Hmm? bu defee loolu ma xam ne hypocrite dëgg mooy abi. abi mën na ñëw di nekk ak bu may ànd ak moom di ko yóbbu ci umu te fekk loolu mu ngi am. ma leneen loolu mënul nekk. man de merewoon naa la ndax damaa foog ne da nga doon seen complice. yaa man dinaa seetaan loolu ak ni ma mel ak umu tamit. Hmm. deful loolu gëwuma loolu. ko defee muy lu ñaaw de loolu moom de bu amee moom dana kër gi dana tas moom lu leer laa la wax bu amee kër gi dana tas. du lu may seetaan nag ci àddina te defe naan doo ko seetaan. yaa ngi loolu duma ko mës a seetaan. <laughs> abi nëbb na ma boppam nag yaay. Mm-hmm. loolu day fi am loolu day fi am man day loolu bu amee moom su digganteeg la yàqu daal laa lay bañal moom bu yaba sax nga jéem koo daal seet nuñ ko lijjantee waaye man bu dama bëgg nga expliquer ma rek mu leer kii ñëw na kër ga ne danga koo fase ma bëggoon man cause fase bi lan la lan moo la ñaan baat wa ilaa lan la bëgg nga expliquer bu ma dégg bon père way man xamee woo ma caaxaan déjà bu la ne dama koo fase wax na la lu am fasewu ma ko. dañoo wax man ak moom mu xëy ni day dem sa kër papaam su su ma ànd ak sam ñëw fii dinañ la ñaan baat ma ne ko demal léegi moom na wax lan laa ko def. eh eh yow lay déglu waxal ma xool li ngay wax lan la. papa bu day doxaan ba pare. moom day ñëw ci kër gi di xeeñ ay parfum heure bu ko neex lay tëdd si te ma wax la jaaro laa fekk ci poosam xam naa ne du jaaro yaayam du jaaro rakkam ma wax mu naa ma ay entreprise yuy defar ay jaaro yaakaare ma xale jàppe ma dof te moom ma ma waxoon du mës a takk keneen dafay doxaan yooyu nga wax ci mais kii waxu picc la fi wax ay buur dafay doxaan day xeeñ parfum ah jaaro laa fekk ci poosam mais lan mooy loolu. waa Guèye man papa dama la jox cër sama société sama secrétaire saa yu xëyee day cuuraay bureau bi c'est normal parce que dama ngi recevoir ay invité su may wàcc cuuraay loolu mooy topp ci sama yëre mun ne damay doxal beneen bi ci topp mooy man sama poche bi boo ko ubbee di ci seet ba fekk ci jaaro xamoon nu jaaro jaaro dama laaj. papa xam nga ni man dama ne fan yi ci benn projet keroog ma la jox cent mille ci projet boobu la nous sommes une société de création fan yi dañoo woo artistiquement pour reproduire des boucles d'oreilles authentiques benn film ñoo ko soxla accessoiriste bi ku woo ma ni ma na leen defaral jaaro yi parce que ay maire yu màgget ñoo ko war a takk mais nii la mel dalay flairer comme une chienne dalay topp di la font xam nga loolu tamit dafa rafetul sa jëkkër wàcc sonn soxla consolation soxla tendresse soxla amul nga jege ko di ko dab bi dabbee di ko dañ daññee ki wax dem na ba sama papa ak sama yaay sax desal leen dara mu ngi ni ñoom la def ma xas ok xam nga fi mu toll nii man waxi picc laa fi dégg li ma fi dégg moom amu leen gain de cause yow sa wàllu bopp yabaatee tax nga def lii nga def ah silence da ngay dégg déglu la yow li fi wax ni yëpp waxi picc amul lenn loo xamante ni am nga ci gain de cause bu mën a tas sa sëy téye sa loxo euh, lenn laa lay conseiller à Zola genre yi du ñuy sëykat man dëgg laay def ci digg bi laay jaar amul sama doom amul doomu keneen genre yi du ñu sëykat ndax dañuy dem joxante rendez-vous fële may ma tuuti ma tas ma dem sëy ak yow. bien sûr ah kay yow parce que génne woo fi gain de cause di tax nga war a tas. waxu waxu waxoo fi dara loo xamante ni moo tax nga war a tas. li ma la mën a xamal na ba xamal la ko mooy bu toppee tànku ndeyam du la sëye la ndeyam sëy na quatre fois tas man nag néew ma fi di làq kenn yow laay xool boo xoolee mu doy la téye ko fi boo fekkee ni doyatu la faxas ko mu génn kër gi. mais dafa dem bay sama yaay ak sama papa lu la leen di wax mi ngi ni du ko weddi. parce que sama yaay ak sama papa ñooy moromam ah. yaay def loolu. dégg nga yow amoo amoo looy ruus ngaan ay ñoom ñoo ma njëkk a xas. yow am nga looy wax ah? kon yow ku xas ndey jàmbur na ngaa bàyyi sa ndey ñëw a kër ga nga xas ñu man sa bàyyi du ma la may boo ma xasee nga xam salopard loolu def sa kër ni nga ko def kër jàmbur. mais bu woo dof dof loo ba tas sa sëy bi booy dugg kër ga ma lay rey on t'encourage. kon nekk voilà merci toppal sa tànki papa moo la fi andi woon te moo la fi andi toppal ci ginnaaw bu fi topp de. ma ci waañ bi toggal na ma nekk. loo bëgg. su kanji. eh da jógoo la. kañ lay pare. bàyyi mu toog man daal naa dama fee waroon jaare rek takk ñaareel bal bi takk kon yow li ngay ñëw sunu kër di wax di faire genre nekkate yoo hypocrite nga yow. lu ma defati xamoo loo def déedéet <laughs> yow ab yow tey rek laa xam ne yow ku am fit nga te capable. mais boo ma waxul lu ma def. yow noppi yow waroo wax fi nekk nii. Ah. ak lépp loo mën ci wax rek nan dama la def comme sama sœur ndekete yow yow da ngay génn ak buub yow kan moo la wax loolu bu dee sa rakk bu seytaane boobu xamul sax lu mu reeree démb kooku dafa mën a fen moo tax maa moom def ñu neen yooyu moom bu ko sax dugal suñuy diggante xam la laa lay xamal yow amoo pour xam kan moom ma ko wax est-ce que yaa ngi may dégg yow abi vrai hypocrite mooy yow parce que waroo ñëw suñu kër ma présenté la umu yóbbu la ba saalam ngeen toog ma présenté la ko ma ne la nag jàppal ma ko bu baax ndekete yoo yow yaa ngi karta sa bopp place nga ne yee yaay da bëgg a ñëw wujje ak moom. ku la ko sant yow bëri fóoti. non man santuma la nga présenté ma seen seytaane boobu ngeen xam ne sëyul bàyyiwul man sama mag lu nekk mi ma koy defal sama chambre à coucher bi ma ko jëndal te en plus sax moom dafa ne bu ma la ko wax donc j'ai pas le droit di la ko wax te yow loo ci xamul man gor laa bi ma xamee ba tey gore nga ma xamee daf ma ne bu ma la wax dara donc léegi da nga bëgg man ma dévoiler vie comme ça ku dee ci marché bi nag yaa sa bopp. yow góor dina non non xam nga ma bu baax te dëgg nga ma xamee donc yëfu hypocrite moom nekkuma ci de. dëgg laa la xamee de tey fen nga ma. yow yaa ma bett nga yóbbu ma ci seen dof boobu di ma ko présenté nga xam ne oh. yegg na leen fu yàlla yeggul. moom nga jàppee dof mais xamal ni yow yaay dof bu mag bi yow. mën na laa nekkee dof ah xamoo noo ko nekkee. kooku daa xam lu baax ñu mën a kott amuñu mbaam. yow ma lay doog comprendre lu tax bi ñuy wax nga nekk ji ci opposé wu. bañ a opposé ba mu neex parce que damaa meroon mënuma woon retenir samay sentiment lu tax nga ma fa yóbbu di ma ko présenté dof boobu rastaam yooyu kenn xamul lu muy nduroo da nga meroon yow di nga gën a mer ndax di nga gën a am lu la metti lu may faral dee am man ngay faral di waxat yee allo waa mais yow très cher namm naa la de ci loo ne yaa ngi ci jàmm ma bàyyi la ma la waxoon fàtte woo ko yii man xew ba moom dama faa bëgg a tëgg sa xam nga ne man yooyu mën naa ko <laughs> tissu bi ma jënd de ragal naa bu ma ko solee daaneel borom xew ba te loolu sax laa bëgg nag wuyu ma xoolal quatre-vingt-dix mille laa jëndee tissu bi moom xoolal Matar moom may ñëwal ma fay ko quarante-cinq mille ay yii daal. dàll yi de boo ko gisee saag ba nag ah nar naa faa toj ñaw bi de dama ko bëgg a ñaw robb boo xamante ne robb bu soxor boo xamante ne laa ko bëgg a ñaw <laughs> man daal en tout cas xaalis bi maa ngi la koy yónnee léegi yaakaar naa su ma ko calculer ay trois 300 mille yu lay doon waa baax na amul problème <laughs> eh. waa après ñu <laughs> ñu déggante waa yow kuy wut téléphone destu xaalis bi destu xaalis bi. un million cinq cent un million deux cent bi dimbali ma jox ma ko ngir yàlla sa kam yow sàcc nga xaalis bi ba jot cee jaay trois cent mille eh waaye ma ngir dama ko bokk sama sama famille sama xaalis bi dañ jot yaa ko sàcc kenn sàcc ko. je comprends pas looy wax ah, nii yow di comprendre di comprendre ndax xaalis bi yaa ko sàcc. <laughs> nga may ji. defal ndànk dama fe dencoon xaalis ci biir kër gi ma ñëw fekk ñu jël xaalis bi xotti enveloppe bi gauche xotti ko droite. te yéen yéen a xam façon sàcc yooyu yéenay ko pati. Mhm. dimbali ma ngir yàlla yonent bi nga jox ma des ci xaalis bi 300 yi sax amul problème jëlal ñaaw na ko ba def ko say yëpp def ko say achat ba pare jox ma li ci des dimbali ma dama ko bokk samay nawle. yow bàjjen mën ngi jiñ sàcc. ah yaa ko sàcc kat nag ku jël 300000 fere ko ci ay yére ki garafaas ak i daal ak ay simpot loxo ma ni ngeen def seen bopp yi. dama laa laaj ba xam yow mën ngi jiñ sàcc ah, wala. yow da ngaa jaawale. déedéet déedéet. sàcc moom yow man bàjjen man damaa namm 300000. man damaa nam un million cinq cent luy un million cinq cent man li may xëy di ko lijjanti moo ëpp un million cinq man ngay jiñ gis nga boo ma jiñatee sàcc dinaa la ñuus wala yow yëgoo ni man damay ñuusaate ba ñuusaale ma ci man mii sama ñuus gi may ñuus nit ñi man bàyyi bàyyi beralu ma ko bàjjen de ma ko bàjjen beralu ma ko tante beralu ko kenn te am naa nag lu may seet gis nga su ma amul lu may seet dinaa xolal ñuus ma xolal dinaa e bàjjen dinaa bu ma wax loolu maa la gën a wuyu xam nga lañ seetoon naa fi kenn yow dama lay leen bu ma jiiñati sàcc xoola laa pelaa dawal bu ma jiiñati sàcc sekkuma ko ak yow est leer na kon yow euh, ñu laa yi ci kër gi moo bari hmm. bu ji la kon bu ji la waaye yow nañ dajati ci mbedd mi sax banga nga ba nga may xool mun na dafa mel ni dama engagé sama dee nag xam nga nag ndeysaan yaramu mag ak yaramu xale bokkuñu te xale dañuy judo dañuy karaté dañuy taekwondo dañuy kung fu lépp la ñuy def jabaru buuj moo sàcc xaalis bi xam nu may defa dem ci biir toog féexal sama yaram bi ndax man sax sonn xam ma dem ci biir toog baa bëgg a soof naka ah. de jox leen ma suma xaalis sama xaalis laa soxlo jox leen ma ko nga sudu loolu damay dem indi sama baax ñoo dëkk ci biir kër gi waaye lii lan la dama war a joxe sama caution ah boobu ba ngeen may dawloo yow sa sœur bi waaye lii lan la yow et xam nga lu ci lu ci am damay dem léegi jëli sama bagage ñoo dëkk si kër gi wala xaalis bi génn rek ah c'est vrai que da am problème ban intérêt laa am man pour di complot ji ci xaalis bi loolu rek laa lay laaj ban intérêt laa ci am man sama yaakaar man tey la gën a tas kii moo lekk xaalis bi te pour mu leer la yow yaa ngi dégg mais man yow yow yow yow et puis yërëm moom ah d'accord yow problème mu fu dëkk nga am mais man yow téye au courant que ni sama deuxième femme dem na. yow sa deuxième femme na dem ndax da ngay takk tey suba nga tekki kële. lii lan la dina dem demati. d'accord sama da nga bari jabar sama troisième femme a ngi nii meuble yi ma ko commandé ci laa waroon complété menuisier bi mu lekk xaalis pour nga gëmba nag xam ni man kompaloo ma. nañu maag yow nañ jëlandoo big ak fooy bind signé plainte yóbbu ko police nga xam ni man man la sama yaakaar gën a tas. yow tu es sérieux waaye yow man ma weesu sérieux nga naan ma. kon yow bokkoo ci complot bi. ban complot dafay am ba ma ciy bokk. et xam ma man lu ma ci sër bi. oui mais moom mës nga lan lay liggéey au fait. et xam nga lu ma jaaxal ci moom. Ah. moom du déglu mbalax du déglu leneen reggae rek lay déglu. reggae lay déglu gisoo wat bi mu watu xanaa. non yaa ngi si roche. kii ah. est-ce que du tux yàmba. day tux. ah oui lépp lay def. non kii bandi la. bu ñu demul police nag duñ jot suñu xaalis. non gis nga ko yóbbu police. jeex na oui nañ na dem. suñu yaakaar lay tas ah. en tout cas sama xaalis moom soxla naa ko ah. j'en ai besoin. na ah oui nañ dem police. nañ dem nañ def plainte dem moo gën. ok parce que kii moom daf ñuy fontoo. amul problème ah. amul problème soo ko fekkee ci biir kër gi mu yëngal bopp bi di kaay jaay. non kii xoolal kii su nga kii bandi pire mooy kii. mer nante la. non bàyyi noonu. bàyyi wëyu nag su nga wëyu bandee baayam jeex na baax na ok ñu dem ñu dem on d'accord ok